Mademba Camara ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. yow ngay point focal euh, li jëm ci question migratoire ca cnts euh, tey ñu waxtaanee ci sénégalais euh, africain yi sax laa mën wax ña nga xam ne jamono ji am na lu leen fekk ca Ukraine muy situation de crise ga fa am ba tey gisaguñ ci plan de rapatriement ban jàngat nga ci def. waaw jàngat bi ma ci am mooy mbir mu bette la. mu mm. bette la parce que guerre suy ñëw du tàggoo mm. ñoo ngi ko doon jiiñante di ko waxante mais kenn xalaatul woon ni dana gaawe nii mm-hmm. wane sénégalais yi fa nekk nag euh, li ma ci mën a wax mooy ambassadeur bu fa nekk di Pape Diop te nekk Pologne euh, mi ngi def lu mu mën jéemoon la yónnee ay bus foofu mais bus yi mënul woon mm-hmm. mais sénégalais yi fa nekk débrouillé nañu vraiment ba ñenn ci ñoom trente yi ñu ci reporter woon foofu en Ukraine quinze yi daanaka yegsi nañ Kiev euh, ci yegsi nañu ci ci frontière Pologne bi Mhm. ci astafurla ci capitale bi donc quinze yi ci des ñu ngi góorgóorlu pour dugg mais ambassade bi ma liir nee na euh, toutes ces dépenses ñoom ñoo koy jël en charge donc Pologne tamit permettre nañu africains yi fa nekk ak sénégalais yi ñu mën fa nekk pendant quinze jours avant ñuy rejoindre seen pays d'origine beneen bi ci liir naa ci presse bi que le président Macky Sall président de l'Union africaine ak président commission j'ai son nom de de l'Union africaine aussi donc euh, moom tam Euh, ñoom condamné nañu dund yi nga xam ni wala jafe-jafe yi nga xam ni africains ak sénégalais ñu ngi ko am ci frontière yi ñu leen di tere. Mhm. ñu accéder frontière bi te dafa jaaduwul. Mhm. te alors que dañuy wax ci yenn règle yi que ni conflit su Euh, frontière bi nga xam ne dafa nekk ci diggante foofu frontière bi dañ leen a war a bàyyi ñu jàll loi parce que temps de guerre la. tey euh, wax nga ko mbir euh, guerre du du tàggoo day bette mais bon amoon na li nga xam ne nit ñi njottoon nañ ne boo mayul ci crise lañ jëm mu am sax ñi nga xam ne am nañ temps rapatrier seen i doom nga foog ne Sénégal mënuloon amee taxawaay googu. waaw li ma desee wóor mooy est-ce que nañ leen ko parce que des fois tam xam nga nit su nekkee di liggéey fenn. Euh, nekk fa am fa teraangaam euh, pour mu jóg jóg rek wan loolu ginnaaw rek dem dafay jafe. Hmm. xëy na loolu tam Sénégalais yi xaw nañ ci jànkoonteel. wóoruma mais su fekkee ni Sénégal defu ko nam waroon na jël ay mesures yoo xam ni bi coow yooyu amee comme lañu daloon ci Chine ban ñoo dal di xaar ba mbir mi ni këtt ni jonn ñuy wut ay mooy yu leen fa jëlee waroon nañ ko euh, def aussi mais mm-hmm. suñ ko deful daal vraiment ñu euh, beneen yoon ñu mën a suur yu mel noonu préparé wu en conséquence ba dara su dara nara wàcc ci sénégalais ya fa nekk rek ñu mën leen a jël en charge. am na beneen tamit bi nga xam ne xewoon na fi ca Chine xuuxaan ba jamonoy mbas mi di euh, door mu amoon tamit ay sénégalais ñoom bëggoon nañu ku leen jëli foofu mais état gis nañ ne da leen faa bàyyi. comme li ma wax rek xam nga tey xëy na te fois le problème de moyen peut-être posé wu na woon xëy na bette woon na woon xam nga des fois. Euh, dan naan su coow amee boobu ku nekk sa bopp ngay tal mm-hmm. est-ce que euh, lañ nekkoon ci Chine rek la boobu virus bi mu ngi propagé wu fépp est-ce que état bi amoon na moyen fépp fu sénégalais nekk rek mu dem jëli la indi fa je ne pense pas mm-hmm. mais quand même euh, yu mel noonu war nañ koy di di di di préparer wu peut-être est-ce que duñ ko du voter suñu budget yi mm-hmm. mu doon loo xam ne dafay taxaw ba nga xam ni su yu mel noonu amee ñu mën a jël moyens yi jël ay avion ñu euh, dem jëli ña fa nekk euh, indi leen quoi loolu moom vraiment suñuy élaboration politique yi wala suñuy préparation de budget yi au niveau des affaires étrangères maa war nañ ci wutal ligne bu mel noonu pour prévoir des choses de ce wax nga ko sànq mu daal am nag euh, li nga xam ne ñoom ñu ngi koy dund africain yooyu euh, nekk ca Ukraine dégg nga ci sax euh, ki jiite Union africaine ak président de commission bi ñoom ñu def ci benn communiqué ñaawlu racisme gi li ni mel sax mu poser question gi nga xam ne ñoom ñii di immigré yi ñu ngi koy dund ca bitim réew ba tey. benn que nee naa immigré mm. fépp lu koy dund. Mm. ndax ñun ñii dañuy gis ne suñu tukkee rek ba Mauritanie gi rek jege wala ay Niger rek yooyu des temps da ngay am ay jafe-jafe ay trac yoo xam ne da nga koy am ay xaalis yu lay laaj ay carnet de santé ne serait que rek avec le protocole de la CEDEAO rek mm-hmm. euh, les membres les pays de la CEDEAO rek ku ci ne rek tey carte d'identité rek waroon nañ ko mën a euh, tukkee mm-hmm. mais du loon du pays yëpp koy accepter mënul nekk malgré qu'on demande pas de visa te damay wax ni ci les cartes de la CEDEAO sax ñun dañ ñu ci ndax Sénégal ñun ñoo ko njëkk a defar mm-hmm. mais gisuma beneen boo xam ne defar nga ko mais tey Euh, dama naan gis ni protocole yi ñuy signé ak lépp li ñuy def daal euh, taxul mu amal ñu njëriñ au delà de nos frontières tam au niveau des autres pays aussi c' la même chose tey tubaab bi suñu bëggee ñëw Sénégal wala bu ñëw Afrique les Européens dañ fiy ñëw dugg facilement dem ak dikk euh, nu mu leen neexee mais ñun doon na lu jafe lool lool lool waxuñu nag dañuy dem ni assaillir ay pays jàmbur bëri fa lool mais xam ne mën nañoo rek teg ay règles yoo xam ne wala ay convention mhm. wala ay protocole yoo xam ne nit ñi war nañoo mën a tukki dem ak dikk dans les règles euh, yi nga xam ne c'est établi dans dans tous les pays. Euh, tey jii nga foog ne euh, suñu état africain yi. gën nañoo dooleel li nga xam ne mooy seen i politique étrangère jëm ci diplomatie. waaw am na lu ma la ci doon wax rek ci seen politique étrangère li ma ci mën a saluer wax naa ko mooy les BAOS. Mhm. bureau d'orientation mhm. de suivi. yi nga xam ne installé nañ ko presque dans presque dans toutes les régions. Mhm. donc avec un en lien avec les ARD agence régionale de développement nga xam ne mhm. sénégalais yi nga xam ne ils sont de retour wala dañu fa nekkoon pare bëgg a ñëwaat investir fii dañ leen di accompagner ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe ñu leen di financer mais mal bi rek mooy euh, politique boobu dugaluñu ci euh, les autres euh, c'est les immigrés mais dugaluñu ci les migrants travailleurs mm. il est temps qu'ils réfléchissent aussi des accompagnements pour les migrants travailleurs qui sont là et puis qui euh, yi waaye it ñi nga xam ne tamit ay doomu réew mi lañ te nekk bitim réew kon euh, lii wane na ne euh, ñi ñibbisi lañu ñu mën a téye mais ñi nekkul seen dëkk nekk bitim réew. waaw loolu soo xoolee. mooy tey xam nga tey y a un au moins sur les députés pour les. pour les pour les sénégalais de la diaspora. sur les sénégalais de la diaspora xam nga hmm. loolu tamit benn avancé la kon tey. tey su fekkoon ne dem nañ ci zone bu ne wala Europe Italie France fu ne Afrique chaque fois que ñu fay am euh, du doon benn député kese de la diaspora mais ñu fay am dans chaque secteur euh, ñu def ko par par ligne ay Afrique de l'Ouest Europe fii Amérique Asie donc doon na tax ñooñu dinañu mën a ñëw ci jafe-jafe wax di ko wax di ko wax ci misu ci assemblée bi nga xam ne dañ leen di mën a euh, jël en charge mais avancé la mais tey war nañ ko gën a approfondir que vraiment sénégalais yi dund bi ñuy dund foofu metti na Euh, surtout ñi nga xam ne dañ faa nekk te surtout amuñu këyit metti trop euh, ci ñoom donc sénégalais war na Sénégal war na gën a xalaataat politique am étrangère par rapport aux sénégalais établis de l'extérieur parce que vraiment ils participent au développement du pays ne serait que rek envoyé yi xam ne dañ koy envoyé rek on dit souvent l'envoi les émigrés moo gën a ëpp sax l'aide au développement bi nga xam ne pays européens yi dañu ko assister. mais euh, ndax jàpp nga ne euh, ñoom ñi ba ñu amee député de la diaspora ba tey seen situation changé na ndax ba tey ñoo ngi gën di ñaawlu le fait que euh, seen i représentants diplomatiques duñ leen faale. parce que des fois mës na am benn consul au niveau de l'Italie mais ñun dañ ci participer parce que parce que les Sénégalais yi fi nekk foofu suñuy wax ay jafe-jafe yu ñu fay am pour ne rester rek bu ñu koy wut. on n'arrive pas à voir le consul euh, l' ambassadeur. donc dañ ci dox ay jéego ba ministère bi jot ci ba femme boobu sax a été relevé au niveau nag de l' assemblée. Mhm. vraiment dinaa ci danañ ma baal ma tudd turam je ne fais pas de publicité muy Mame Diarra Fam euh, mi nga xam ni ma nga fa aussi elle fait de son mieux ñëpp taxawaayam mm. mais tey euh, politique bi dafa jax ba nga xam ne sax. il participe plus euh, à la politique euh, intérieure que la politique extérieure uh-huh. parce que tey waroon na moom taxawaayam mu gën a jàppale les sénégalais de l'extérieur uh-huh. wóoru ma ndax dina ko def na def ko di dajeeg association des immigrés parce que fii y a beaucoup d'associations d'immigrés ñu fi nekk donc uh-huh. dañ leen a dañ a déglu woon rek mais su leen dégloo des man ma bokk ñoom ay panel au niveau de des de, des congrès wala ay réunion au niveau de bu CSE wala au niveau des affaires étrangères mm. mais daal je sais qu'ils sont restructurés ils sont écoutés mais le problème rek euh, mooy euh, loolu ñi gën a ñibbi si la rek comme ni nga ko waxee mais ña fa nekk tamit il est temps que ñu sor organiser wu euh, ba nga xam ni parce que tey politique yi soo xoolee képp ku nekk président rek mhm. su demee foofu da gis ni à chaque fois les communautés se euh, se retrouvent ñëw accueillir ko wax ko seen moom est-ce que moo yooyu lu ñuy jëfe la wala lu ñuy toppatoo la wala après suñ fa jógee rek su politique dañ koy dugal dans yooyu yëpp c'est des yoo xam ne mën nañ ko mhm. mën wax tey ngay point focal euh, li jëm ci wàllum euh, migration euh, ngeen nekk ca CNTS ñu bëggoon a xam ndax seen kuréel tey dina taxawu yenn migrants yi bu ñu amee ay jafe-jafe ci wàllum yoon ak yeneen. waaw et puis en général au niveau du CARISM CARISM c'est le comité d'action et de réflexion intersyndicale sur la migration moom moo nekk bras technique de la coalition des centrales les plus représentatives et puis affiliées à ñun ñooy taxaw ci mbiru migration liñ ci def nag bari na tey ci jamono yi la passé rek par nos partenaires am nañ ci benn cinq millions bu fi jot boo xam ne on l'a distribué intégralement aux travailleurs migrants ci nan en terme d' mm-hmm. au niveau de l'Agrose ñi nga xam ne dañ fay de mm-hmm. euh, di dem di wuti si dañu leen fa dem jigéen ñi jëndal leen ay paan jëndal leen ay gants yemuñu ci EPI yooyu rek mooy équipement de protection individuelle mais dañ leen a jox xaalis ñu defar ay gaal yoo xam ne ñoom ñoo koy moomal seen bopp te foofu benn association bu nekk foofu la au niveau des euh, Mauritaniens ñi nga nekk nga xam ne nekk géejewaay bi fi ñu koy tuddee bàjju naar nga xam ne ñoom ñooy defar euh, on les appelle les tanneuses mm. mooy der yi nga xam ni euh, dafay jóge ci animaux yi ci xar wala bëy nak nag lu ñu den noonu moom dañ koy defar après mu dem ci ay conteneurs tout ça mais li nga xam ne moom lañ koy defaree xeme kii lay doon euh, nepp-nepp hmm. nepp-nepp boobu nag ñoom dañ ko daan dëbb ñun nag dañ leen a jëndal machine boo xam ni da koy wol boo xam ne électricité la installé lañ ko donc ñoom ci li ñuy liggéey loolu soo demee au niveau des des maliens de la Médina dañ leen jox benn fond revolving boo xam ne genre tontine lañ koy def ñu koy joxante seen biir euh, muy tourné kuy lepp fay ba ñoom ñu mën ci liggéey soo demee au niveau des Sierra Leone dañ leen jox euh, pour ñu dem defar seen kayit e GIE au niveau des sénégalais de de l'extérieur ñu nekk fii yaraax euh, te gën a gu bu sant ñu jiitu ko ñoom dañ leen jox ñu dem defari kayit au niveau des guinéens de Castor dañ leen defaral seen bureau bi nga xam ne moo nekk marché Castor tout ça ñu teg ko fa donc daal vraiment loolu def nañ ko en terme d'accompagnement en terme d'accompagnement de justice wala problème des fois su fekkee ni migrants yi dañu am problème ak seen i seen i employeurs autant pour dañ leen di ñuy dem au niveau de tribunal dañ leen di booleeg suñuy mandataire euh, syndicaux yi nga xam ne ñu ngi siégé foofu ñu accompagner leen mhm. ñu suivre dossier bi mais dossier yi li ci ëpp sax euh, ñoom ñoo koy ñoo koy gagné donc daal euh, ñooñu dañ leen ki jàppale ci bi ñu fi amee ci Covid bi tamit migrants yi seetlu woon nañu jotuñu woon ci kit d'hygiène yi dañ daan joxe ak kit alimentaire yi mhm. mais bindoon nañu commission de résilience bi pour ñu jàppale leen mais amuñu ci réponse te malgré que yi amoon nañ fa deux mais c' était dommage mais ñun au niveau des mairies ci yenn cas communes yi nañu ba migrants yi am luñ ci jot foofu beneen bi mooy la couverture médicale universelle ñun vraiment migrants travailleurs yi nekk foofu au niveau de nos quartiers avec les vraiment amuñu woon benn problème pour ñu accompagner leen ñoom jot nañu ci loolu. d' accord sëñ bi Mademba Camara ñu lay jaajëfal bu baax a baax. Mm-hmm.